salaamaaleykum euh, mbokk internet IGFM euh, tey dañu am mbégte kontante di dalal ki nga xamante ne moo di Absa Makhtoum donc euh, artiste la musicienne ñu indil leen ko tey ngeen découvrir ko ñu wax leen mooy kan ban genre de musique lay def Absa na nga def. maa ngi sant sama borom. Absa gis nañu ko génne nga benn single benn album je dirais donc nga présenté ñu juste quatre titres est-ce que mën nga ñu wax turu album bi la. album bi génnagul mais def naa quatre titres yi nga xam ne premier titre bi mi ngi tudd Lawul Mahfous. yan Lawul Mahfous bi maa ngi si maa ngi jël euh, xasida maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al bu mu benn ci xasidaam yi bu mu tuddee Lawla Nabi ma jël ci ñaari bayit traduire olof. woy ko mooy premier titre bi. léegi yeneen quatre sons yi nag. yeneen quatre sons yi yeneen trois yi des maa ngi si woy éducation deuxième bi troisième bi maa ngi si woy héros la tudd maa ngi ko woy sama benn copine Salabati Diop quatrième bi environnement. éducation ndax xam nga xalé dañ ma ngi déggé ci biir way bi ma ngi wax ni yar ko mu yaru yé ko mu yewu jangal ko mu xam bu magge jariñu xalé bu ndaw bu am ñetti at nga yé ko 6 heures du matin mu def tanki neen sol yi yaram ba def gom nga ko yalwaan lo aram na mut la xam ndax dañ leen di woowé l'enfant de la rue la rue n'enfante pas bobu aussi ma ko jëlé ci ben waxu maam cheikh ahmed tidiane al yalla na yalla yok leeram bi muy wax ne euh xalé yi ñi yalwaan loo araam na maa ngi ko jëlee bat boobu laa topp ak fi muy waxee ni laari n'enfante pas baat boobu laa topp topp ba woy la ñu mën a way ñoo juddoondoo ñoo màggandoo ñoo yarandoo ku ne xam ne alaaj Bat Diop digganteem ak sama papa Cheikh Ahmed Tidiane Baye ñoom ñoo yarandoo ci keppaaru maam Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoom sunu yaay yi nekkandoo ma fekk fa loolu mu doon ku baax ku yaru ku dal ku teey nekkul ni alal bu may defal la mais jikkoom moo tax ma woy ko maa ngi dugg ci musique 2007 laa commencé woy man de maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum laa doon woyantu rek sama première woy di ma woy di ko ci woyantu di ko ci woyantu rek daal ba woy yi di ñëw nii ba léegi nii comprendre ma daal maa ngi woy te nag Moussa Leye sama maam Tivaouane laa dëkk. Euh, euh, hmm, xam nga amaguma producteur mais am na ay njabootu maam Cheikh Al Maktoum yu baax léeg-léeg kenn woo ma rek jox ma benn enveloppe ma dugg studio fay dem def clip di góorgóorlu nag di. que mun na nekk tamit mun na nekk loolu tamit mun na nekk mais xam nga comme bële maa ngi doog a commencé woy ndànk-ndànk ak comme nii ngeen ma defal nii bu ci ñeneen ak ñeneen jàppee j'espère que ça passe ah pour le moment moom maa ngi ci woy yi maa ngi ci góor góorlu maa ngi studio maa ngi répété maa ngi gis gëstu gis nga ma ni ak sama feuille ak samay kii comme sunu borom nattoon nattoon na ma ko daal may woyante ku tedd ki ba mu indil ma woy yi ci kattanam ah ma maa ngi jéem daal ba comme ni ñëpp di def rek jéem xool nu ma ci génne comme ñëpp parce que la dugg lu nekk ñaan nga yàlla am ci ndam maa ngi sama ay projet dal machallah on remercie le bon Dieu dal waaw ñu bëggoon xam aussi euh, est-ce que musique kese ngay def wala am na leneen looy def en dehors de la musique. waaw am na métier loolu nga ma bëgg a laaj je suis technicienne en électronique Robert Raoult ma ma formé 92 ba 2001 mu yóbbu ma chez Elage Hadj Ndiaye liggéey naa fa 2STV wala ma télé ba fekk liggéey naa fa 6 ans grâce à. sama doom nag ci la jaare grâce à elle Coumba Gawlo sama taabu jigéen bu baax bu yaru boobu nga xam tata Absa rek la may wax yaayam di sama grande sœur moo ma booleeg Robert mu formé ma jaar naa am na jaar naa tuuti daal fu ma jaar pour sàkku xam-xam def naa audiovisuel parce que dama doon def sonorisation bi ma Robert formé ba pare boobu euh, yóbbu ma 2S ma fa jógee aussi jaar naa yëngu leen mais boobu boobu 2007 maa ngi commencé woy jaar naa Africa Production Mobile Sound Tabala jaar naa rock bu entreprise bu Demba Dia liggéey na ak ñu bëri bëri fii macha allah. est que def musique ci Sénégal yomb na jamono ji ñu nekk. du musique rek moo jafe li jafe bëri na lépp a jafe fi mu ne nii. xana rek comme niko ku tedd ki di waxe ñu selal xol yi rek yéenante jamm ku bëgg a dem nga bayiko mu yek ñepp yéenante jamm ku ne yéene sa morom jamm lu lu yalla dogal ci jammam rek nga nangu ko selal xol yi comme niko ku tedd ki waxe rek mais dara yombul ci rew mi fi ne dara yomb fi lepp jafé jafe. len <laughs> di remercier di remercier mam Fatou di remercier fat lay Kena complexe Sofia copine copine muy ku baax ku yaru ku tey ku dal ma koy remercier lu bëri parce que c'est grâce à elle ba ma ñëw fii donc maa ngi ñaanal yàlla mu def ci àdduna bi yépp jàmm di ñaanal sama responsable moral Cheikh Seydi Mouhamadinul Moustapha Sy Masscom yàlla dundal ko dundalal ko aar ko aaral ko sàmm ko sàmmal ko musal ko musalal ko ci sama barke cofeel ci maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum maa ngi nuyu sama yaay di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér merci beaucoup. internet IGFM ñoo ngi nekkoon ak euh, Absa Maktoum euh, Absa jërëjëf. merci beaucoup.